ngi nuyu mbokki guy bañ leen ndokkeel ci guddi gi nga xam ne ki tax ñu binduñu moom lañ ko jagleel muy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa waxuma rek jàng yi waxuma sax li ñuy bëgg a def waaye xool sa mbokkum jullit bég nga bég mu bég rek yiw woowu kenn xamul moom toll kon nag ñu ngi leen ci ndokkeel di jiital ci nuyoo bi imaam yoroka yowma nad'u kulla unaasin bi imaamihim jigéen ñi nag moom ñoo dàq sañse dàq saraxe waaye ñoo dàq wax yàggatul incha allah ñu nuyu imam bu baax ziyaar ko nuyu chef de village bi allah ñu nuyu ko bu baax nuyu bàyyi Lamin Ka bu bàyyi alxaj bay dondo léegi la ma fekk ca dal ba di wax ci bàyyi mbay dondo ba daanu fa leer nga xam ni cofeel nag du jàmm te moom Baye Mbaye doon moo daan wax ni sama cofeel ci sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñeme naa cee songu gaynde loolu nag ku ne xam na ko dem na ci dëkk ba tàyyi fa mu toog ñu ni ko Baye mbay ñaanal ñu ñu am courant fa mu toogoon la ñuy samp poto indi ko fa muy tàkk loolu nag mi ngi ko taale ci wii fi sëriñ Babacar kërsi radiyallahu taala ndax moo ni woon iblis li muy bon bon su ma nee yàlla rus ci man sëriñ Babacar kërsi mu rus ci moo tax kuy mbay mbay lañu àndal daan seede leen loo Seydi Abubakar daan nga Seydi xalifa yaay mbay mbay Abubakar daan nga Seydi xalifa yaay Abubakar daan seede leen loolu ñee ko def yàlla nga fekk dee xalifa yaay daba jaay seede aw kër daan seede leen loolu Seydi Abu yoo yoo leen loolu Seydi Abu Bakar daan ga seede leen loolu waay waylak maalikil mulki mooy lif jaam di seede leen loolu Seydi Abubakar daan nga seede la loolo ku la dégg xel loola ku la ne jàkk xam ni mbay ki fi yor léegi Maodo bi daan nga seede leen loolo Seydi Abubakar daan nga seede قطب الخافقين قطب الخافقين قطب الخافقين قطب الخافقين قطب الخافقين لو حجك قطب الخافقين قطب الخافقين قطب الخافقين قطب الخافقين bay bay doon de kutubul xaafixayni kutubul xaafixayni kutubul xaafixayni guy mbay mbay lañu àndal kutubul xaafixayni loxo ca kaw guy mbay mbay lañu àndal kutubul xaafixayni bay bay moo ko daan way daan ko xayxayni daan ko di way daan ko xayxayni daan ko mashriqi daan ko wal maghribi mbay si daan ko ali furasi daan ko bay si na kisalo daan yónnee nanu ndaw ñu jëlal say baydaan yónnee nanu ndaw ne baydaan nee nu bëreetun baydaan yónnee nanu ndaw ne baydaan nee ñu jëlal say baydaan waa mulukek waa mulukut ardusin yëndun kontar ak ardaan seede leen loolu waaye tàccu leen bàyyi mbay Eh, Lol, nak moy nuyo nuyoo gi waye ma ngi nuyu sama sama ndijay sama mak sama xarit di alxaaji asfal al amin fa tabarakallah gàmm gi gàmm gu ko ñor la tay fajar la ma ni ma maa ngi nii dafa am dëkk bu may dem waaye incha allahu dana nu daje guy mbay yàlla indi na ko ci jàmm bés bu ne ma wax ko oustaz Modou Fall ma ni ko sama waay nga waaye nag sa papa mooy sama xarit loolu moom àdduna bi yëpp xam nañ maa ngi lay ñaanal yàlla na yàlla dolli sa sutura ci barke sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax cër bima jox alaaj dut kenn la ko jox moom xam na ko bu baax waaye ma nuyu Omar ak Daam nuyu itam Bada sama waa ana Bada Bada moom Bada moom dafa jeex tàkk ci man daaw ba ren billaahi wal daanaka semaine bu nekk mu woo ma ni ma comme li ngay génn dafa bari dimbali ma rekk dama bëgg a def addi sëñ Babacar nga indi sa oto ma duyal la ko ba mu fees nga xam ni foo jëm doo fay ma ni ko billaay yéene bi mat na ndax nag waa nga ne yaa ko moom ku joxoñ bi suurul yàppoo du suur te yéene bi rek doy na ma sëkk kon yàlla na yàlla may ko ay kamiyon yu bari loolu nag su ma ko waxee seen doom la fa tabaarakallaahu mu mel ni nag gàmm gi mi ngi bëgg a guddi maa ngi nuyu Ibrahima Combaan mi fa tabaarakallaahu di suñu frère di suñu lépp ndax jël na doom tuddi ñu keroog bis bu ma tuddee doom alaaj dut kenn fekk ma fa ma ni ko Ahmadou loolu moom man mii maay jug dem noonu laa sole sama dàll ànd ak gaa yi dem fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla sàmm nuyu itam kaaw Omar mi nga xam ni lii yépp mi ngi jaare ci moom fa tabaarakallaahu ndax at mu njëkk ma moom mii lañu woo mook Baye As ñoom Omar ak ñoom eh, Ilimaan nuyu itam asan mbay anamu sama doom ji ci ginnaaw nuyu naa góor nuyu jigéen nuyu mat nuyu ndaw ndax guddi na te daaw dama leen a diggoon gàmm te gaaw mooma te ren nag damaa bëgg a gàmm kon ñu jàng salaatul fatiha fatiha salaatul fatiha jox ko yonent bi salaalu wasallam yéene ci way dëwi julli di mu doon seen leer ak seen reer gàmm ci barke Seydina Muhammad ndax it ñaan rekk lañ leen deseel jamono yii yëpp maa ngi koy nettali dafa am sama benn mag bu ni ma caat daal su ma la xoolee sama xel day dem ci bi bàyyi mbay donde di doog a faatu tëbëski jot ñu reen di xar yi ba noppi fa ñuy lakke ma fekk leen fa ni leen dama bëggoon ngeen may fii sama papa ma dem yóbbul ko nee na image boobu bu ko xalaatee rek jooy bay bëgg a dee nga xam ni rek ñi dem soxlaatuñu loolu ñaan rekk lañu soxla moo tax nañ leen di fàttaliku nag ñu jàng faatiha ñetti ixlaas salaatul faatiha yéene leen ko sunu paree nag ñu jàng salaatul faatiha faatiha salaatul faatiha bismillah yàlla Omar ak a nag danaa leen beral nuyoo ndax ñëw nañ ba kër ga fa tabaarakallaahu teewaaleel eh, dëkk bi yépp kon nag loolu faw ñu leen ko yàlla na yàlla barkeel لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا

إلا الشيطان من كيده وسل بالإيمان فنجنا يا خالق الشيطان وسل إيماني سيد الحاج مالي سنة وجورة السلطان والجيران يا ربنا ولفحتي نيراني hati ya fakti wa syarri kulli hasidin wa hasida. وكيد كل كائد وكائدا وكائدا ومفسد بالدين والخيرات سيدي الحاج مالك وثقت بالله وبالكتاب وبالنبي مصطفى الأوابي أوابي أدعو بسم الله والمساني الكرسي ذي المعاني وسورة الإخلاص ذي التمجيد وفاذ ما ما تمحى التوحيد توحيد ومن دعا بزيال اليقين يجب ما رام من المدين باي سرين بابكر سيني مجيب يا مجيب يا مجيب فبدعاء وجليل خريب حريب نسألك التسليم وصبر على ظل بلائي بالمصطفى الشافعي كل الخلق ثبت إلهي من تحيي بالحق بالحق أزكى صلاة الله وتسليمه ربي تسليمي وآله وصحبه القراء والتابعين ثم الأولياء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مالك الملك إله الشرف داريني يا ربنا يا مالك الكونين غنى إلهي شرف داريني داريني أماتنا الله على دين النبي بشيخنا الإمام بالطيب آمين آمين استجب دعاءنا ولا تخيب سيدي رجاءنا رجاءنا أرجو الأمانة يوم لا له المولانا أرجو الأمان يوم لا أمان أي كدفني يال نغ تيم راو دي يونت بي صلى الله عليه وسلم أرجو الأمان يوم لا أمان إلا لمن آمنه المولانا مولانا أرجو الأمان يوم الأمانة إلا لمن آمنه المولانا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا بري لا إله إلا لا يا ربي لا إله إلا تبتي بدفل لا لا إله إلا لا لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا لا يا إله إلا أستغفر الله لا إله إلا 啦啦。 به فالعيز لنا بإجابته بين فمحمدنا أنا نبغ سيدنا محمد سيدنا فالعيز لنا لإجابته فالإيز لنا أيوة أيوة, أيوة. يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعيز لنا لإجابته فالعيز لنا bi jaabirul kenn du yonent bi muhammaduna waawa huwa sayyiduna zulana ali ah. ijabatihi ana ñu bëgg yonent bi buy mbay def leen asu xubada min talatihi wallay lu dojo min wafratihi wallay دجا من وافته ana waa guy mbay nay gàmmo tay faqa rusula fatila ba'ula ahda sula lidila datuhi ahda sula lidila khairul ba ca Madina سيدنا فالغيب لنا لإجابته العز لنا لإجابته أنا وصل فقط رسول فضل لولا أهدى سولا داس بلا لدين خير الانبياء محمدنا انا وسلم وسيدنا فلبي لنا لإجابته هل إذ لنا كدفني يالنا كزياري سنغم جمدنا ay ca def leen kanzul karami kanzul karami Mustafa kanzul karami kanzul ya Rasulallah kanzul karami Abdullah kenn zul sangu àddina kenn zul yow la zul ya Rasulallah kenn zul sangu àddina kenn zul kenn ya Rasulallah kenn zul

salleen salleen yéeg ana ñi sant sall salleen salleen yéeg salleen salleen yéeg sagul yaa rasuulallah sagul yaa habiiballah sagul dul sangu laaxira yonent bi sangu addina sangu aljanna sangu laaxira yaa rasuulallah ana ñu bëgg yonent bi yaa rasuulallah yaa habiiballah Mustafa يا رب يا مكن ذل كرم يا رسول الله كن ذل كرم سقو أدنا كن ذل كرم يولا كن ذل يا رسول الله كن ذل كرم واو مولاي رسول الله كنز الكرم مولا نعمي أدل وبي لشريع مصطفى خير الأنبياء أدل أممي لشريع مصطفى خير الأنبياء فمحمد هو سيدنا فلا أيوة، أيوة. يا رسول الله عزك نسبي وأعلى حسبي كل كل عربي المصطفى خير الانبياء كل عربي في خير الانبياء ñu bëggee neen ci bi ay ca def leen azka nasabi أعلى الحسب كل غربي في خدمته كل العربي في خدمته خير الأنبياء فمحمد

بإجارته شق القمر بإجارته سنگ بچ مدینہ هو سيدنا فلا يذلنا بإجابته أتى ليلة الأسرى والرب دعا لحضرته والرب دعا لحضرته فمحمد محمد هو سيدنا بل يزلنا والإجابة هل إزلنا أنا نبقى نتبي يني قامتين الله شرفا والله عفا أما سلفا خير الأنبياء أما سلفا من خير الأنبياء فمحمدنا وهو سيدنا فلغيزلنا لإجابته هل إذلنا ba ci madina ya rasulallah fal'izu lana li jaabatul biya fal'izu lana waaw waaw sang bang madina fal'izu lana li jaabatul biya fal'izu lana waaw li ijaab yéenay gàmmu tey fala izlana li jaabati fala izlana waaw li ijaabati sëñ Babacar ni wa Cheikhu Ahmadu Tijaan mayam ya wër na ci réew ya wa seexu Ahmadu Tijaan ana taalibe cheikh yi sëñ Babacar nee na wa seexu Ahmadu Tijaan

yàlla ko may may maam xalifa may dana wa seexu Ahmadu Tijaan waaw waaw mayam yàlla taalibe seex la xëy ca kaw fa man yu la si maqut bi wa toog ko moom مام خليفة بيننا والشيخ ودو تيجا مريم يا طالب الشيخ لخيتك وفمن يولى في مقودي وتوفكم ربك مام خليفة بيننا وشيخنا آه. قد تيجا مريم يا بالشيخ الشيخ لخيتك ولا تدرو يا أنازي لخيتك ولا تدرو يا أنازي بيصلي الله تجروا يا أناس جدتك لا تجروا يا أناس لخجك ولا تجروا لا تجروا لا تجروا لا تجروا يا أناس جكرت لي امام خليفه بيننا الشيخ احمد التجاري يوم تالي بالشيخ الشيخ لخيتك ومن كان يا فيها وموت مام شيخ تيجان صدق يونان وشيخ أحمد taalibe Cheikh loxoy ca kaw damaanatun min rasulin mayam maga moom maam Cheikh Tijaan sutub yana wa Cheikhu Ahmadu Tijaan mayam yaa طالب الشيخ مدين لك ملبساكم جل قدرا وتخم مام شيخ تيجان دميانا وشيخ مدو تيجان ويوم يوم غريب الشيخ لا فرل فوق سرى والسرى لخجك فوق سرى والسرى كنا كويك ما شبينا نطيبنا وشيخوها ودوتيجا واوا ويوم يوم بمثال مدينة نجم وجوز فيه مقال مام شيخ كوخ مام شيخ تيجان كان يهيل وشيخ أحمد تيجان مريم يا طالب الشيخ سلخيك كولك تعالى ختمه شكو Tidiane doon na yonent wa Cheikh تالي بشيخ دوغلين صاحو يغلين نشا تبني دقم تقريا كل يا شيخ ليتبو يغلين نشا كفي عمال مي تبني دقم كفي مسمال جخ تالي بشيخ سل خيتك ويغلين نشا تبني دقم تقريا كل يا talibe Cheikh Madiyeen lay bégal yëg leen ni Cheikh teg nay dëkk ca kër ya kulli wàlli yoo se xalay tëgg yëg leen ni ja teg nay dëkk ca kër ya kuy bay sàll man yéen lay gàmmol yëg leen ni ja teg nay dëkk ca kër ya am na xat bi ya am na xat bi ya yëg leen ni ja kuy bay sàll mën yéen laa faral yëg leen ni Cheikh teg na yi dëgg Chakariya am na xatmiya am na kalbiya yëg leen ni Cheikh teg na yi dëgg Chakariya fi bàyyi ma tàkka loxo yi ca kaw yëg leen ni cher teg na yi dëgg ca góor ya am na xat mi yaa am na kat mi yaa yëg leen ni cher teg na yi dëgg ca góor ya guy may sàll man yéen lay bégal fa mun taxa xawla cheikhi bay ba fa tawal borom dardaas borom medina يغلن نجاتك انا طالب يا شيخي طالب يا شيخ سل خيجك دوف خول شيخي غيب فتول برم درداس برم مقنا شغل النشا فكرين دقو طالب يا شيخ مدين لايقا ملقز فيه إن أركت حسين برم borom dar dar borom mi ko naa sëg leen di jëf sëg day dëggu dëggu riyaa yi bay sàll man yéen lay bégal mooy leen ci Cheikh bu ngeen bëggee gi seen borom bu mooy ci Cheikh gi sëg yoon naan mooy leen ci Cheikh bu ngeen bëggee seen borom ku ngoy ci Cheikh am li nga bëgg ngoy leen ci Cheikh bu ngeen bëggee gis seen borom ku ngoy ci Cheikh gis ak yoon ngoy leen ci Cheikh bu ngeen bëgg جسر براء الجية الجية على نبي محمد خوال قزاك زرية كزاك أهل زفو Bugün bugün güzel para ab liggéeya ab liggéeya ci Cheikh bu ngeen bëggee gis seen borom ab liggéeya liggéeya muy wéy di wéy ak ngërëm ya muy wéy di wéy ak ngërëm ya muy wéy di wéy ak ngërëm ya di wéy di wéy maam Cheikh Tidiane sëtub Yàlla muy wéy di wéy ak gërëm Yàlla muy wéy di wéy ak gërëm Yàlla muy wéy di wéy ak gërëm Yàlla muy wéy di wéy ak gërëm Yàlla العارفين إمامنا أنا طالب شيخي رجائي وخوصي للإله وسيلتي أنا طالب شيخي إلهي بقطب العالم رفينا إمامنا يا رجائي وغسيل الإله وسيلتي واقوي بيسال أنا طالب الشيخ إلهي بقد بالعالم رفينا إمامنا يا رجائي وغسيل الإله وسيلتي خنا طالب شيخي نكون جتانتي بأنا طالب شيخي إلهي بقد بلا عارفين إمامنا رجائي وغسيل الإله وسيلتي xanaa xamoo leen ni suñu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall ak i mayam taalibe Cheikh la ilaahi bi qutbil رفينا إمامنا يا رجائي وتوسيل إلهي وسيلتي أنا البولاري سين مام شيخ عمر فوتي تال برم دقبري أكي ميام تالي شيخ لا إلهي بقد بلا رفينا إمامنا يا رجائي وتوسيل إلهي وسيلتي suñu maam Cheikh Seydil Hadji Malick sama turando borom Tiwaawan taalibe Cheikh la ilaay bi qutbi la rifiina imaamina rajaa'i wa xawsilil ilaahi wasiilati ki ngeen bëgg ki ma bëgg sama sëriñ seen sëriñ borom bone kaare ba taalibe Cheikh la ilaahi bi qutbi la رفينا إمامنا يا رجائي وغسيل الإله وسيلتي ki ngeen bëgg ki ma bëgg borom ba ne bi du ko wengal du ko jéngal fi mu ko daaw fa la koy teg ren taalibe Cheikh ilaahi bi xut bi la رفينا إمامنا يا رجائي وغسيل الإله وسيلتي كي جن بك كي ما بك سما ما برمنا كاري بتالي بشيخ لا إلهي بقلب بالعالم رفينا إمامنا يا رجائي وغسيل الإلهي وسيلة سنما متك طالب شيخ لا إلهي بقلب العارفين إمامنا يا رجائي وغسيل إلى هي وسيلتي ختام نظام للولاية جملة سرين عبد نينا سغورغا نينا كون لاج ndax talibé cheikh nga ngay dit dital neena dok nga ci tarixa bi ne bu la ndax tiijaan nga danga naan pire ana tijaani gisuma leen ana tijaani ana tijaani ilay bi qutbil aarifina imaamina yaay رجائي وتوسيل الإله وسيلة ختام نظام للبلاية جملة بي أرتجي أفران من كل ذلة بي أرتجي فرع المعالي كل نهاية وقاية نتيجان من كل شدة وكم أشتكي عند الإله أي زيارة زايا ولكن العنان بطبتي أنادي والدي نداء أهل جوايا ولدريتي مرادي وربتي وما زلت أرجوها من الله وحده وإن لم أنا الهايا مرا وعدت وأنت الوعد إنك صادق إجابة داعي زتيرا زتيرا وزن لتزن لتزن Sidi El Hadj Malick neena ijaabata daayin si tiraarin zindati zindati ijaabata daayin si tiraarin zindati ki ñu ma tudde ki ñu ko tudde neena ijaabata daayin si tiraarin zindati zindati زترار وذلة الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيخة كذلك إحواني إلى ومن يتمي ربي إله خير ملتي وأزكى صلاة الله صوم سلامه على خير خلق الله من غير سنية مع الآل والأصحاب دماء ma وما قال داعنيا إلهي لشدتي moo tax neexul ba neexul waaye tiijaan yee ko yor xanaa xamoo ni tiijaani lun bàyyi mu jàll rekk ñoom la neex suñu maam Abdul Hamid kan moo nekkaloon Seydil Haaji Malik ca lag benn tubaab bu naan bolokaar ni ko yaa ngi may tànqal ci sa noddin ak sa wasifa yi dama bëgg nga arrêté ko mu ni ko dama am kilifa xaaral ma dem tiwaawan wax ko sama kilifa seydil haaji maali bi mu ñëwee mi ngi dajeeg Maodo ci gaar bi Maodo ni ko looy ut daawoo ñëw ta tàggoo maam Abdul Hamid kan dafa war maaloon seydil haaji maali ba bu ñëwee tiwaawan du fa soldaal du fa dugg wana mu ni Maodo tubaab bi nee na na ah, bàyyi noddi na ah, bàyyi wasiifa yi Seydil Hadji ni ko bul xeex bul xuloo kaay ñu dugg bureau chef de matalik si sayduna muhammad jox la juróomi bayit boo demee Kaolack boo ko jàngee ñetti fan kaay ñu bi dugg bureau chef de gare matalik jox la juróomi bayit soo demee Kaolack boo ko jàngee ñetti fan buñ fa jëlewul tubaab bi ma delloo cheikh kurusam mu dem jàng ko ñetti fan ñu jële fa tubaab ba الله يا رسول الله يا أفضل الورى كجوك تخو يالنك تخو عرفة نحن في دين شديد التراكم فها نحن في دين ولا نرجو فارجا سوى الله والهدي نسوم للمكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا عريبا كما في البدئيات خير راحم إلهي فجل أهلنا أهل غربتي وأهل اتباع سنتي في التراحم نعود عليا بالنواجس مثل ما بقلب في ساعي ندرتي هاشم moo tax sànq daa am ku ma fekk ci dal ni ma caat daal tey dama bëgg nga bàkkal ma sëriñ Babacar ma ni ko wax nga ma lu ma bëgg sëriñ Babacar sëriñ Babacar sëriñ Babacar sëriñ Babacar sëriñ Babacar kilifa mbay mi fi gi mbootoon njaboot gi si mbootoon Sëriñ Babacar maam mawud si jëkk ñaanal cheikh ñaanal ko rasulullah di gi gaynde moor ay may waaw sëriñ Babacar Maodo si ku fi taajoot waaye ana waa kayeen ana waa Kayen maa Maodo si ku fi taajoon ana waa Kayen maa Maodo si ku fi taajoon ana waa Jaayeen maa Maodo si ku fi taajoon ana waa Njeneen si ku fi taajoon ana si ku fi ana waakayeen Maamadu si ku fi taajoon ana fi ku fi taajoo ba xëy ni mbay si ku fi ba xëy ni mbay na nga ñëw tey xalifa bi liggéey nga ba tay ñëwal ba gis añu bi yàlla waaw Babacar Serigne Babacar ku dem ci waa woon dimb góor ak jigéen ña fa nekkoon ku ne sa géew gën yi eskay alaxira rëy gan tey waaw ana waa faale Mamadou Si ku fi taajoon ba xëy ni mbay na nga ñëw tey xalifa bi liggéey ba tey ñëwal ba gis añub yàlla sëriñ Babacar hawaadisul xayraati cheikh nee kenn du ko fàtte ci Sénégal di ko wuute ñépp ko seede ci loolo sëriñ Babacar moo tax le 12 bi mooy ziar général le 12 mars soo demee ca buntu raw du sëriñ Babacar sa yaram day daw nit ñaa ngay buuxante rek ngir bëgg ziar borom bu ne kaare bi bopp baa nga commencé ca di jaan cat laa nga ca koñ jàkka ñuy ziyaari borom bone kaare di buuxante teket li nit ñi bari bari ku fa dugg ajo boo fa indi yàlla dina la ko defal ci barke sëriñ ci barke sëriñ ci xam nga lu ko may loolu mësula may boromam مسولة فتي كل مسولة دب أكبوك وخلو أمول دجكم سرين بابا كار مسولو كيس أب نتال ما نتال موي فتو ما مسولو دول بنكاري فوكو اللي شبايلا دخكت فالها دمس أولو sëriñ Cheikh Tidiane si ak boroom daara ji danoo ñëw ci sëñ baabakar jëndal ko bone faas mbaxana la ni ko góor gi am nattal bii mu natt ko ba noppi ni rafet na de waaye nag dama wëllëranteeg bone kaare fekk mi ngi am ci comptoir yi rekk moom lay sol góor du soppeeku musulu gis ab nataalama maam sol lu dul bone kaare fokk wëllëre ci mbay la ya ndax kat fal haatu masolo sëriñ Babacar yar bi mu yore ci biir mbooloo moom lay saxoo saa yi wéetoo ngir yàlla di ko tax na du jëfi lu dul yoonoo moo tax Serigne Babacar ni mu yaroo ci biir noonu la yaroo ci biti dégg naa boo ko musaana fekk mu tëdd ba jóg boo ñëwee ci lal bi doo xam fan la borom bonekaay bi tëddoon ndax yaru ndax yarum ndax yarum ndax yarum ñun nag dañuy bërëngu rek bu mu lekk boo ñëwee ci ndab li doo xam fan la borom bonekaare bi doon tibb ndax yaru nun ñuy tuur rek yar bi mu yore ci biir mbooloo moom lay saxoo saay wéetoo ngir bëgg yàlla di ko tax na du jëfe lu dul yoono sëriñ Babacar hmm. buy dox du gestu gannaawama bëtëm du xool lu dul fi mu jëmani yar bi ci góor gi moom laa yéem ku mel ni góor gi dootul yomb sëriñ Babacar bu weeru koor wi ma saan feeñ kan moo fi gën a bëgg Serigne Abdou Al Amin bu weeru koor ma saan fee ci Sénégal ba ca Congo balaa fajar ñépp yëg ko baay Abdoul la koy doxloo baay Serigne Abdou Al Amin Serigne Abdou Al Amin Serigne Abdou naka noonu te bés gi ñëw naka noonu service bi tam naka baay Abdul Aziz la koy doxloo Sëriñ Babacar bu daan doxantu ca kaw taaxama ti waawan faq di ko seetaan mu mel ni ci seen biiro not sa jamonooy may looloo Sëriñ Babacar bu la musaana may toogaay ba jox la heure ngir waxtaan bu heure ba jub see maa mbay taxaw na temm ci loola naan ko Aziz diw ñëw na maa ko joxoon waxtu wi naa te gor dafay sàmmi kàddoom dal di taxaw lu ci loola sëriñ Babacar Si nee na góor du xam fa du tiit ba du ñàkk sàcc du soppeeko du jàpp bàyyi am nawleem du dal dalle lii wóor naa sëriñ Babacar magam yi mi noon jataayam duñ ko wecceek ku dul soppeem loo leen waxi bay lanu gëm mag ñaa ngi nii xam ngeen loolo sëriñ Babacar xale yi juddu ci ginnaaw mbay ana xale yi juddu ci ginnaaw mbay kan moo fi juddu ci ginnaaw mbay ku fi juddu ci ginnaaw Serigne Babacar te gëm ko jugal taxaw xale yi juddu ci ginnaaw bay gi sunu mbay te mbay moo ko ko jagleelo bur yàlla dolli la teero bur yàlla dolli la teeral bur yàlla dolli la sargal Cheikhul Khalifa suñu maam booy te dolli jaamal jaboota nuy àndandoo di ziyaare ota suñu bay mbay dondo yàlla na yàlla yokk leeram ya moo daan wayal sëriñ Babacar babakar ko wayalee nag ba serigne babakar génn ba tok ci fauteuil bi ben place rek lay xol ta ñi nekk ci salle bi ñépp ku nekk defe na ni gor gi yow lay xol lay xol lay xol jërëjëf moo motax sama taw mom la tuddé khalifa mbay taawu alaaji mbay dondo mbay dafa ñëw ni ma papa man daal photo bi ci saal bi fu ma dem rekk damay topp ma ni ko sa maam xalifa la noon lay def ñépp ca way wi ma ni góor gi ci photo bi kéemaan la Serigne Babacar mi ci photo bi kooku seen maam la Serigne Babacar nee na bu ma rusul woon maa ma wundo ku wax man ci photo ma tontu la lii leer na Serigne Babacar dem leen ca rawndu ba ñaan yàlla la fa ñaan pour yàlla may la ko lii leer na Serigne Babacar moo ñaanal sama baay mooy ñaanal nga mooy rogalaat ci ñun yal na dem ba ca sëtë ya Serigne Babacar si sopp na Cheikhana sax Tijaana loxo yi ca kaw a kaw sopp na Cheikhana sax Tijaana waaw cofeel ga feeñ na ca biitam ya Sëriñ Babacar képp kuy taalibeem yow bul jaaxle yomal xiyaam bokk nga ca way teexe ya bay mbay dondon sëriñ Babacar du tifli Baye Mbaye Dondo nee na sëriñ Babacar du gestu Baye Mbaye Dondo nee na sëriñ Babacar du xaxtandiku sama papa nee na sëñ Babacar weñ du ko laal xam nga boo ragalee yàlla li yàlla bind yëpp dalay ragal borom bu ne kaare bi nee na waxuma leen nit waxuma leen jinne waaye man Babacar malaaka sax ñimew moo tax baay mbay Donde sëñ Babacar ni ko Donde Mbaye nag bégal nga taalibe yi ci seen sëriñ te may borom bu ne kaare waaye bàkkal ma sama sëriñ ba nag déggoo sëñ Babacar naa il ma zaya ya ma na jemi min ma